tey nag ku ne xam ne ne moom mooy vendredi 9 juin 2023 bala ñoo sori rek nañ leen bàyyi ngeen seetaan te déglu yëglikaay li ñu indil ñu dikkaat ci ajuma ji bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 9 juin 2023 ñu ñëw ak yéen yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey moo xam les arènes la moo xam sunu làmb la moo xam yëglikaay bi nga xam ne moom moo di record la ba ci sax yëglikaay bi nga xam ne moom moo di la tirbine tey ku ci nekk rek xëy na ñëw tey nag ci xibaaru lamb bi nga xam ne nii ah moom la journaux yëpp xëy tey di ci wax les arènes nag moom boo bëggee dégg dëgg démb daal la siiwaloon boobu lépp xibaar ba ko siiwalee nag am na ñu doon wax naan dëgg laak du dëgg waaye dafa mel ni nag moom les arènes lu mu la jox boo bëggee dégg dëgg ci ay xibaar moom jàppal ne am na démb daal ca ba vingt jotee ba teg tegal maanaam fanweeri minute ak ñett ci li yëglikaay bi di les arènes yëgal maanaam mbokki internet yi wala boog ñi nga xam ne ñoom ñooy liir les di xamal leen ne daal Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lô ak ki nga xam ne nii moom moo di Eumeu Sène bi ñu doon xaar pour mois bi nga xam ne nii moom moo di mois de juillet maanaam le 31 juillet combat ba les arènes xam leen ne depuis démb ne daal boobu combat moom maanaam ku ko doon xaar pour atum ren wala boog ci saison bii nu xam moom moo di ëmm ak nga xam ne ni moom moo di Balla Gaye numéro 2 du am ci weer wi nga xam ne moom lañ ko jàppoon ak saison bi nga xam ne moom lañ ko jàppoon muy saison bi nga xam ne nii maanaam moom mooy saison bi nu nekk yëglikaay bi nag yemu ca topp na ca la war a tax combat ba amul mel ni ki nag Balla Gaye numéro de moom daal moom moo jël li nga xam ne nii moom moo di certificat médical daal di ko yóbbu CNC certificat ba nag la muy wane moom moo di ak ñàkk wéram moo tax combat ba daal boo bëggee dégg-dëgg yëglikaay bi nga xam ne ni moom moo di les arènes xamal nañu ne daal kon ku yebu xaar ko la nga xam ne nii moom moo di atum déwén waaye ren moom mënatu caa am loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko moom lay arènes waaye yému yemu ca yeneen yëglikaay yoo xam ne ni wax nañ ci moo xam sunu làmb la sunu làmb tamit xëy na dinu wax combat ba la nga xam ne ni moom moo ca xew maanaam combat ba daal amatul pour le 31 juillet moom reporté nañ ko yëglikaay bi xëy na wax na lu mel ni ki noonu ndax nag Balla déposé na fa la nga xam ne ni moom moo di certificat de euh, médical ba nga xam ne ni daal pour deux semaines la loolu yëglikaay bi lees sunu làmb ba tey moo xëy ñëw feelu les arènes record tamit ñëw feelu leen ñoom ñaari ñooñu daal di leen ñetteel xam nañu ne daal Balla Gaye numéro 2 moom ah médical ba dugal na ko kon moo ko ëma seen maanaam bëreega moom pour mu nekkati dana jafe ren mu mel ni ki nag boo bëggee dégg yëglikaay bi daal ne na moom fii ak fee saison moom moom record ne na Balla mënu cee bëre moo tax nag makan mbeng ma ne combat bi moom boo bëggee dégg-dégg daal ah ne na bu ñu bi moom buy ubbee bëgg na daal ñu bëree ko ca maanaam daal boo bëggee dégg-dégg octobre bi nu jëm daal maanaam la bëgg kon ñu bëri ca boobu lépp combat loolu record moo xëy ñëw dinu ko wax ci combat boobu nga xam ne nii maanaam léegi dàq nañ ko ca date ba nga xam ne ni ca la waroon am beneen combat ngi nii boo xam ne nii moom date bi mu war war a am léegi leer na mu diggante bébé jën ak nga xam ne moom moo di Baye Mandione te jamaïcain jam production tëgg ko combat ba lay am mel ni ki boobu moom fi mu nekk nii maanaam régularisé nanu ko yëglikaay bi moom moo xëy ñëw wax na lu mel ni ki noonu moom sunu làmb waaye yemu ca de ñëw nañ ci adversaire bu bébé jën ki nga xam ne ni moom moo di Baye Mandione yëglikaay bi ne na moom Baye Mandione daal 30 combat bëri na ko ci carrière am yëglikaay baa xëy wax de ne na am na ci 14 victoire ak 14 défaite loolu yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko waaye itam wax nag bébé Diène ne na ko day sa test bu njëkk ci sa carrière yaa ngi koy doog a def maanaam boo bëggee dégg-dëgg adversaire bu mel nii moom yaa ngi koy door a am ba ngay bëree ba tey kenn koo xam ne ni yëglikaay bi ñëw na ci moom muy jam téere mi nga xam ne moom tamit digganteem ak Ahmed Deme ku ne xam na ne ñoom ñaar war nañoo bëree yëglikaay bi ñëw na ci moom mi nga xam ne ni moom moo di jam yi te combat ba nag waa Jender production ñoom ñoo tëgg joojule lamb su ma fa jógee damay dem fa nga xam ne nii nag moom moo di les arènes les arènes moom su ma fa demee la ma fay fekk moom moo di franc mi ngeen xam franc mu parcelle mi nga xam ne bërki démboo njaay moom moo daan ka nga xam ne nii moom moo di forza bu faas nag la mu ñu xëy xamal daal nee na boo bëggee dégg dëgg moom Franc day maanaam soreetul Modou Lo ngir baatal record ba nga xam ne Modou Lo defoon na ko ca parcelle 14 combats yoo xam ne Modou da koo tegale woon am ca 14 victoire yëgli kay bi ne na Franc nag daa ndax nag mu ci 12 combats yoo xam ne ni am na ci 12 victoire bi di les arènes moo xëy ñëw wax nu ko depuis mu commencé ci lamb ji di bëre ba tey yëglikaay bi ne na daal boo bëggee dégg dëgg moom Franc ay performance am moom mu ngay yokku saa bu nu xëyee yéylikaay bi ñëw na ci nag combat ba nga xam ne ni moo ko boole woon ak xale ba ngay wax géej mbambulaan mu njëkk a bëre ak moom yéglikaay bi nee na boo bëggee dégg dëgg boo bëgg maanaam daal diggante ak géej mbambulaan amoon 29 décembre 2013 yéglikaay bi nee na depuis boobu ba tey ba bërki dem bi mu daanee Forza Franc daal mu nga ci 12 combat douze victoire loolu les arènes moo xëy ñëw wax na lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci likaay bi nga xam ne ni moom moo di les arènes les arènes nag xëy na daal dinu xamal ne ba tey hmm, jàppal équipe nationale bi nga xam ne nag ñoom ñooy bëri ci tefesu géej gi daal départ nañu wuti fa nga xam ne moom moo di Singapour Singapour koo xam ne ni daal maanaam ñoom ñeenti athlètes ya daal ba nga xam ne moom la ñu war a àndal dem nag jongante ji ngir défendre couleur u réew mi bëri ba ñuy defi nag moom mooy bëri tefes ba te bu yàggul ku ne xam ne ne jóge nañ Tunisie te bañ fay jóge di ñëw indi nañ ay ay médailles yu baree baree bëri ba fa géey nag léegi moo remplacé Ambroise Sarr ci équipe nationale bi ndax ku ne xam ne ne Ambroise moom démissionné def na ko ñeneen ñoo xam ne nii moom maanaam boo bëggee dégg-dëgg maanaam gisuñu seen bopp daal ci association yi nga xam ne moom mooy association yi yénn ci làmb ji rawatina yooyu mbër yi moo tax nag ñoom itam ñu ne ñoom itam dañ cee bokk de maanaam daal maanaam mbir yi moom dañ cee bokk moo tax nag kenn du leen fàtte wala ku leen fàtte itam ñoom ñu fàttaliku seen bopp muy mbëri nga xam ne ñoom ñooy yëngutu ci wàllum simple bi boo bëggee dégg-dëgg association des lutteurs en activité ku ne xam ne ne am na Gris Bordeaux ko jiite association de tamit des jeunes lutteurs am na waaye daal mbëri simple yi moom léegi ñoom it sos nañu seenu association ka nga xam ne nag moom moo xalaat loolu moom moo di caaka fay moo tax les arènes daal ne nañu boo bëggee dégg-dëgg képp koo xam ne VIP wu simple nga yëglikaay bi nee na day boo bëggee dégg-dëgg yaa nga ca bi moo xam caaka fay la Adama Diouf Sélémélé Mamadou Ndiaye yoo Boy Faye Doudou Sané Gaskel Jàmmeek ñoom ngañ seen ak kenn desul ngeen ngel jon nag ordinateur Ibou Ndiaye jaata bu mbuur maanaam daal yëglikaay bi ne na parce que VIP yi nga xam ne ñoom ñenn ci simple bi ñépp boo bëggee dégg dëgg ñu nga fa nga xam ne ni moom mooy ca biir boobu lépp association loolu les arènes moo xëy ñëw wax nu lu mel ni ki noonu foofu mu mel ni ki nag tey fa la nuy yemale yëglikaay yi ñaanal yàlla suñu équipe bi nga xam ne moom moo dem jongante ji moo xam bu làmb ji la ba football beeg ñu jëm ca soo olympique yàgg fa nga xam ne moom mooy ca Allemagne lu ñu wuti daal yàlla nañ ko gañe muy ay ndam jërë ngeen jëf kon dégg ngeen yëglikaay liñ ñu indil tey ci àjjuma ji ñuy bégge ñëpp di ziar ñëpp ñaan ñëpp jàmm waaye di ñëpp tamit ku ne xam ne ne gëj ngeen dégg revue bi li ko waral nag xam ngeen ko fan yi dëkk bi ni meloon ak yëngu-yëngu yi jàppal bàyyil loolu moo tax ngeen gëjoon ñuy dégg gëj ñoo gis waaye ay encore une fois wax dëgg yàlla saa su ne rek ñu ngi leen di bàyyi xel xam nañ ne Sénégal moom comme ni may wax rek ñun ñëpp ñoo ko bokk li comme ñoo ñoo ko bokk nag ci mënuñu ko xaajoo li ñuy wax mooy nanu jéem a bokk ndey bokk bàyyi rek ànd ci dëgg ànd te yàlla tax yaa ngi dégg parce que réew mi tey comme lu may wax rek réew mi bu yàqoo ñun ñëpp la ñun ñëpp ay perte wallaay même sénégalais bi nekk ci diaspora bi sax yaakaar ne du per bu keroog gi mooy ngën a perte ñëpp yaa ngi dégg kon defe naa Sénégal li koy sàmm li tax mu taxaw nekk Sénégal bi mu nekkoon ñu continuer du dund donte nag du ñu bokki xalaat duñu bokki bëgg-bëgg waaye ku ci nekk rek nangul sa morom ca la mu nekk yaa ngi dégg euh, euh, tey ñuy waxtaan ndax waxtaan su amee rek gëm naa ne solution dana am ci lu mu mënta doon ñuy waxtaan waaye tamit di waxtaan tey waxante dëgg bañ di warante yaa ngi dégg bañ di fexelante kenn ku ne li nga yéene sa bopp nga yéene ko sa morom yaa ngi dégg bu ko defee jàmm day am ndax Sénégal ñoo ko bokk encore une fois nañ ci bàyyi xel dañ ci bàyyi xel man li may wax tout le temps rek xam nga fa yi passé dëkk bi di meloon loolu arrangé wul kenn amul kenn ku mu arrangé arrangé wul kenn des fois sax nga dégg ku ne la njiitu réew mi moom moo jiite moom moo war a wax moom moo war a nangam d'accord naa moom moo jiite waaye ñun ñoo ko dénk yow mu jël sa alal dénkaane ko yow itam kenn warula gën a veillé ci sa alal te sunu alal mooy réew mi kon ki ñu dënk ak ñi ko dénk ñépp am part de responsabilité ci Sénégal tey président bi ko jiite muy Macky Sall ñu ngi ko ñaanal jàmm ba ay mandaam jeex loolu lañ ko ñaanal parce que loolu mooy tax ñu mu ci ñun ñëpp moom bu maanaam bu ay mbiram maanaam bu réussir mission ci réew mi ci ma ci lii ko ko Sénégal jam maanaam jam jamono yi nga xam ne moom lañ ko dénk yaakaar naa su loolu amee mu réussir ko mooy réussitu ñëpp yaa ngi dégg. terewul itam ña nga xam ne ñoom ñoo bëgg a jiite ëllëg ñooñu tamit seen réussite mooy Sénégal nekk ci jàmm pour ñoom ñu jot ko ci jàmm mën koo gouverner ci jàmm bu ko defee Sénégal continuer waaye xeex xuloo reyante yàq toj loolu moom wax dëgg yàlla nekkul lu nga xam ne lu rafet la tey dul war a am te yàq gi ñan nga yàqal ay sénégalais ni yow boo yàqee bérébu liggéeyukaay ay sénégalais toog di sommer nga fekk nit ki yor place am nga toj ko jël la mu yor ay séné ay ay ab sénégalais nga ko def te loolu ñi koy def pour man wax dëgg yàlla Macky Sall ñoru leen Ousmane Sonko ñoru leen Sénégal ñoru leen seen bopp leen ñor waaye ki am lu ko naqari di mars di ko réclamer kooku yaakaar naa ne responsabilité ba muy gàddu dina ko doy ba du du agressé nit du jël jëli alali jàmbur du def lu nga xam ne ni waru kaa def kon encore une fois rek ñun ñëpp nañ bokk ndey bokk baay waxtaan Sénégal jëm kanam muy Sonko muy mag yi ñoom ñëpp ay sénégalais lañu waaye ñoom ñaar ëpp ñu importance Sénégal nañ ci bàyyi xel may profité nag di nuy waa cité kër góor gi ndax comme li may wax rek dëkkandoo ak ah, mbokk la te yaakaar naa tey fi ma nekk nii su ma yuuxoo waa kër Ousmane Sonko dañ may dégg ndax li ko waral mooy fi ñuy liggéey les arènes bureau bi fi mu nekk sorewul ak moom fi mu dëkk te ay kilifa yu bari ñu ngi dëkk fii ñu Mariama Sarr su ma jumul fi lañ dëkk sëñ Saliou Thioune ñoo jàkkaarloo kër gi fi nu nekk nii ak buntu kër ñoo jàkkaarloo ñu ngi koy nuyu di ko jaar di ko euh, ñaanal jàmm loolu dañ contribution bu ñu indi la rek ci yëngu-yëngu mi di ñaan yàlla rek dal gi gën a continuer tabaski gaa ngi ñëw ñu nekk si jàmm euh, mais nag tey defe naa ne xibaaru làmb yi moom bi ci gën a fës moom mooy mbirum Balla Gaye numéro 2 ak Ama mm, Sène ndax combat boobu ngun ngun ji yàgg na ci suuf dina am wala du am est-ce am est-ce que duna am waaye les arènes nag comme dañuy gëstu rawatina ku mel ne Abou Ndour ci xalimaam ah moom moo ñu xëy xam nañu nag combat boobu moom ku ko doon xaar booy boo nga xaar di ndax du am ci at ci weer bi ñu ko jàppoon muy le 30 juillet bi ñu ko jàppoon non non léegi moom rapport am na ci abu ah, nag bi mu bindee loolu ah gëstu na ba am ay sources yu koy wane loolu am na te la preuve defe ne ku ne gis na manager bu Balla Gaye au niveau du CNG mu yóbboon médical bu wane ne kon Balla pareegul ngir bëree kon combat boobu leer na ne mënul am ren kon bu ñu gisee euh, combat bi ci li makan wax ci record bu ñu fa demee mën nañ ko xaar mois d'octobre côté boobu ah yàlla nañ ci yegg ak jàmm waa làmb nag moom li koy def mooy bëre moom boobu doo mën a bëree yaa ngi dégg wax dëgg yàlla combat la boo xam ne nag ñëpp a koy xaar Eumeu ak Balla Gaye boo gisee tey nit ñi xëy waxee ak ni ci journaux yi binde nga xam ne combat boo xam ne ñëpp a koy xaar kon liñ ci ñaan yàlla daal ñaari athlètes yal nañu nekk ci jàmm yaa ngi ba dat bañ koy jatewaat buñ ca yeggee ñu mën ko bëri kenn bañ ko wuute muy ko ko tëgg ñu koy bëreeg ñun ñëpp rek ñu fekk ko te tal ko loolu la ñuy ñaan mais combat la boo xam ne événement la moo tax ñëpp xëy tey wax ci parce que Balla Gaye ak Eumeu seen ku ne xam ne seen combat <laughs> mënta moo tax euh, bu ñu fa jógee dem euh, les arènes les arènes euh, wala boog bala ñoo dem les arènes sax des sunu làmb la ñuy des parce que sunu làmb la ñuy dem sunu làmb ñëw na ci bàyyi mi yoon ak ki nga xam ne nii hmm, moom moo di xale bi ñuy wax bébé Diène combat boobu nag jamay ngeen suñu rakk moo ko tëgg muy combat boo xam ne le 13 août la war a am waaw le 13 lañ ko jàpp muy combat boo xam ne incha allahu rabbi yàlla na ci yëg ak jàmm grand contre petit la ndax boo xoolee combat bi li sunu làmb wax rek bébé jeen moo jëm ci test bu mag ndax bàyyi ma ñoon du mbër bu ndaw waaam bëri na ay victoire donte nag ay défaite tam bëri na ko waaye bëri na victoire te mbër bu mag la waaw mbër bu mag a mag la kon defe naa tey xale bu nekkee ci carrière di bëri ba war a bëri ak moom am nga aw sas bébé jeen am nga aw sas bàyyi ma ñoon itam ah defet waru ko ci biir combat ndax ku ne gis na bërki dem daa ñàkk bi digganteem ak bébé Saloum donte combat bu mujj avant bébé Saloum dafa daanoon mu muy digganteem ak euh, non Zarko sa da koo daan après ci la daa daan xoyantaan ñëw Zarko daan ko mu ñëw jëlati bébé Saloum ñàkk boobu combat kon defe naa itam baax na ci moom mu am ndam ci bébé jën ndax bébé jën dina nangu lool duma ko foog ndax bébé jën itam day bëgg daan bàyyi ma ñoon pour bëgg nag jéem a yegg ci kaw a kaw ndax xale la bu am talent ñu koy ziare bu baax Euh, bu ñu fa jógee dem les arènes franc ak ni mu taxawee douze combats douze victoires yëglikaay bi ñëw nañ ci date bi mu commencé bëri moom les arènes diggante ma géej mbambulaan ba tey fi mu taxawee moo Forza ñoo mujj bëri ki dem mel ni ko record Modou Lo bi ñaari combat kese moo tere mu baat ko ndax mam mu baatara ko ndax mu muru def na douze quatorze combats quatorze victoires ca quinzième ba la ko Balla gay daan franc mu ngi ci douze combats douze comme li ma ko waxee rek dama naa tey euh, bu amee tey benn euh, kii wu tey koo xam ne nii mën nañ ne mooy leet na Modou Lo bu siir biir Parcelles Assainies Franc ngay njëkk a génne donte nag actuellement ay xale yu bare nga fa di wane seen bopp waaye nag leet naa siir moom vrai liet naa wu Modou Lo fi mu nekk nii biir Parcelles Assainies c'est Franc loolu la loolu la yàlla dogal ndax mu ngi koy wane ci ay kombaam ci ay làmbam bu mu ci ñëw bëree rek boo ci jógee nag naan combat bi dafa yomb dafa yomb fekk na du loolu xëy na entraînement bi liggéey bi ak fula bi mu jox ko maam moo tax bu ñëwee itam li mu bëgg a bëree lay imposé adversaire am bëree ko ak moom daan ko dem yoonam kon xale la boo xam ne bu jara bàyyi xel la moom franc waaw ba fa géey remplacé na Ambroise Sarr équipe nationale équipe nationale ñu nga jëm pour ba tey les arènes moo ñu ko xëy xamal ñoom ordinateur ak ñoom gars yi ñoo ànd nguur ñaax ak seen i bari ñi mel ni ñooñu tamit ñu ngi dem di wuti ci ay médailles yàlla ko gagné waaw yàlla nañ ko gagné ba tey euh, du ñu sori loolu ndax li simple bi ñoom tamit taxawal nañ seen association boobu mbëri simple yi yëglikaay bi les arènes moo ah, na kon dañaa damaa jàpp ne dañoo gisul seen bopp ca beneen association ba ba Gris Bordeaux jiite wala tax xëy na ñu jàpp ne ñoom it dañu war a créer seen association ah ku ne nag am nga say intérêt waaw waaye yaakaar naa làmb moom est-ce que nekkul Mm, tey domaine bi ëpp association ci Sénégal lamb bëri na ay association lool lool te boo xoolee intérêt yi mën naa ne sorantewul parce que mbër mi promoteur bi ak kum mën a doon ñoom ñëpp ñoo bokk parce que lu ñuy def mee nag du tere ñu ci nekk rek am ngeen droit def seen association li ci am solo nag association yooyu moom bu ñu koy taxawal nañ koy def ngir intérêt général rek bu loolu amee moom li ci des du metti kon ñu ngi balu ñëpp ak di bal ñëpp ak mais fi ñu ko ubbi woon rek di ñaan Sénégal jàmm jiñ fi ko xamee woon démocratie bi ñu ko xamee woon yal na fi sax te continuer di wax tamit homme politique yi encore une fois du yéene moom réew mi de wallaay moom mu gën a réew mi ay doom ay Sénégal ay sénégalais comme yéen ngeen bokkal réew mi bàyyi leen ñu xel des dañ leen di seetaan ci télé yi ci débat yi mais des fois da gis ay débat yoo xam ne day wàcc trop parce que débat liñ ci doon xaar bu ngeen toogee devant les écrans bu ngeen di wax ak sénégalais yi ngeen nu wax lu nga xam ne nii luy tax réew mi développé la lu nga xam ne dina tax Sénégal jóge fi mu nekk gën a avancé mais pas question de ay débat yoo xam ne te fois da nga ciy gis débat yoo xam ne dama yàlla jéggal la yàlla xam doy na te loolu defe naa warta doxe noonu parce que nag nit ki joxonte cër dafa am solo lool lool ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm ba suba incha allahu rabbi waaw eh daw na dóori ko mu jël ko